Ahmet Aydara. dara cantakoon ya fipp nañu taalibe Cheikh Béthio ya fipp nañu tribune yéene kaay ne taalibe Cheikh Béthio day ñaar ci ay bis la ñu caxat-caxatee enquête yéene am na ci ñoo xam ne am nañ ca sax kon ay gaañu-gaañu le populaire ne ñeenti biisu Dakar dem dikk la ñu jël kon daal di koy caxat-caxatee jël ay pono kon taal ko ma ne cantakoon ya kay ah ca wàllum fitna kon la ñu mujj wàcc dee daal di jël nag am ndox topp ministre de l'intérieur di ko ko joor di ko sànni tamit ay xeer nga ni maa la wax lii la quotidien yéene kaay ne consommé kon ci diwaanu Dakar gile ñeenti ci ay bisu Dakar dem dikk kon ñu jaxat-jaxate ko le populaire ne Serigne Saliou Thioune gël tàppe taaw Cheikh Béthio moo benn ci ay avocat u Cheikh Béthio di maître Mouhamadou Moustapha Dieng ah ña ca bërëb dee ñoom nag la sàkku daal mooy Cheikh Béthio ñu génnee ko ci kaso bi ci nu mu gën a gaawee maître Dieng avocat ba ne Cheikh Béthio day day la gën a ànd kon ak dal il a le moral ho a ah maa la wax li lée waaye nag jàpp leen ne Cheikh Béthio kon daa feebar wàllu wér ca maître Mouhamadou Moustapha Dieng kon yamu ca ndaxte nee na ñoom ñooñee sax xam nañ ne cheikh bi kon dafa feebar dañ koo war a bàyyi kon mu dem ndax lu ci tolloog juróom ñaar fukki at ak ñett wér gi yaramam googee kon mayu ko muy nekk ci kaso rawatina kon ci rëbës gii nga xam ne nu kaso Thiès bee mel tane ko te cheikh ba Thiès googee ci boppam kon waru faa dugg parce que cheikh bee kon daa feebar yéene kaay gi ne jox nañ daal àpp kon kilifa ne nee nañ fi ñaar fukki fan ak ñeent ci octobre gii ni kon la nu ne ki xam ne nag mooy docteur cheikh bee ca kon nee na fukki fan ak ñeent ci weer wi day bu Cheikh Béthio dikkulee def consultation ñu xool kon wàllu wér géram man docteuram bi day génnee naa ci kon sama garanti garanteetuma dara pare naa ca réew mi quotidien ne cantakun ya day jaxal nañu kon Ndakaaru démb wal fajiri ne telli telli gi fu ne jaxal nañu ko ngir Cheikh Béthio kon ñu génnee ko ca kaso parti démocratique sénégalais ci tribune yéene kay ne ñun day danañu fekki kon taalibe Cheikh Béthio kon ci xeex bi ah waaw waaw ñoom Omar Sarr kon waralu ko dul li Cheikh Béthio jàppale Abdoulaye Wade ci élection présidentielle yi loolee kese la yéene kaay gi ne Cheikh Béthio nag ñu ngi ko tegkoon loxo ginnaaw ñaar ci ay taalibeem ba ñu dee ñàkk seenu bakkan waaw Cheikh Béthio nag ba ko procureur de la République kon tuumaale la ñu ko jël yóbbu ko ca kaso bee nga xam ne moo nekk ca diwaanu Thiès Omar Sarr ne ñun waa PDS tey d'accord nañoo cantakuun yi ah waaw te PDS nag pare na ngir jàppale képp koo xam ne daa fas yéene kon grève moo xam jàngalekat yi moo xam étudiants yi moo xam syndicaliste yi parce que réew mi ci boppam kon fenn doxul waa M23 patriotique ñoom Abdoulaye Guissé waaw nee nañu Macky Sall la mu war a def daal mooy ay diggéem ci boppam mu wàccoo ak moom Cheikh Sadbou Diop ma ca M23 patriotique nee nañ le pays va mal ci tribune yéene kaay dëkk bee doxul Fatou Thiam député libéral ci laas ne man Macky Sall dama ko yërëm dama koo yërëm parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër duñu dara mënuñu dara incompétent incapable askan wi ci boppam bëgguñu leen ndax seenu dale ci li nga xam ne kon président dénk na leen ko président ci boppam moo amul bilan un Sall ci boppam gàcceel na kon askanu Sénégal gi leen diggée yi nga xam ne kon moom la Macky Sall diggée woon ci campagne ba France daal di xidéen honorable député Fat Thiam yemu ca ndaxte nee na li ci gën a mitir gën cee doy waar mooy Macky Sall jéemul def kon gennuk jeego wuy jëmale kon suñu réew mi la kanam non Macky Sall ma ne xanaa bu jógoon sax jéem a teggis lëf ci dundu seer gii ñu ne waaw waaye dara ba dara booloo jeex du samay kàddu de Fatou Thiam député mooy wax te jamono joo xam ne nag réew maa ngi jax-jaxi Abdoulaye Wade nga France Abdoulaye Wade ci tribune yéen kaay ne bëggoon naa ñëw ca weeru ma dikk ah, Pape Cheikh Diallo ñoo séq ak Abdoulaye Wade xam ne wu yaatoo yaatu la Abdoulaye Wade ci boppam xam le leen ne nguuru Sénégal gii waxul ma ki de nguur gi ah dana leen yóbbu kon fa ma xam ne benn kon di yoon i parce que jàpp na ne yenn ci ay kaddu dañ koo sosal ba pare yenn ci ay kaddu daanaka saaga la parce buñ bëggee wax ne waa kër Abdoulaye Wade dañu fee sàcc ay tableau d'art jëlee ko ci palais bi ñëng ñëng ñëng patiti patata Abdoulaye Wade moo tax jël naa benn avocat ci lu mooy lii doon naa xaar ñu màggal ma feetama comme waa bitim réew laas ne ndaje mi nga xam ne nag njabootu wàdd wàdd googee di libéraux yi ah doon nañu ko amal ca Abidjan Alassane Dramane Ouattara day tagg na fa Abdoulaye Wade de waaw waaw président Côte d'Ivoire ne gis nga PDS ji ci mbaaxuk Abdoulaye Wade un homme de vision gis-gis gu sori moo njëkk a nekk premier parti politique africain woo xam ne delloo na njukkal ak ak yellee fukk libéralisme vice président international libéral Antoine Balen bu baax a baax maanaam ci gàttal daal ñëpp a delloo ko njukkal Abdoulaye Wade tagg ko ña fa dajee woon ñu ba mu des Macky Sall ay jile libération yéen kay ne moo ne Macky day dalal na kon délégation PDS ba ñoom Ousmane Ngom Awa Koudou Ndiaye Innocence Ntap Ndiaye te ndaje moo mais du neex waa Benno Bokk Yaakaar moo parce que ñooñee dinañ yaakaar ne Macky Sall daa bëgg jëlaat kon waa këram yooyee di waa PDS dugal leen kon ca biir wala boog boolewaat APR ak PDS laas ne ndaje Macky PDS une audience sans commentaire la ñuy commenté kay mooy umu si styliste ba ci la pays au quotidien nee na yombul pour ñu suul ma de ah parce que man sëtu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam laa dem naa ca làmb ja Zos ci le pays au quotidien ne soo leen gisee ma jël Tidiane Faye parce que Gris Bordeaux ak Lac de Guiers numéro deux ñemewuñ ma ah maa la wax lii <laughs> tey lii sans commentaire no comment